Euh, ñu ñëw si Sonko moom li muy génn di complain bëri na Sonko chaque jour ak bu bees temps yi moom 94 milliards yi. Ah, wax jàppal Sonko bàyyil Sonko rek <laughs> Sonko ngi kaas. waaw mais gars yi tamit ñu ngi kaas da gars yaa ngi jàppal Sonko bàyyil Sonko. mais mais Sonko moo gën a moo moo gën a yóoxu nag. Ousmane yi la nag defe naa defe naa ci deretu Ousmane yi la nag. lan problème mu Ousmane yi lan seen problème. wel xam nga Ousmane yi xaw xam nga ci histoire pourtant man lii am na ku ma ko doon wax am na kilifa gu ko doon wax. seetlu ko ko nee na ma nit ki koy tuddee sax dafa important. Mm-hmm. xam nga ñun ki ñu tuddee en réalité Ousmane Ibn Affan ci mm-hmm. temps wu yonent bi moom moo doon ki nga xam ne presque moom moo doon ki doon saytu di gën a sàmm diine bi te aussi moo ci doon gën a def alala moo ci doon gën a sonn maanaam ña la sonn nañ ci mm-hmm. mais moom. comme bu ñu laajoon tey bu yonent bi ne woon kan moo mën a maye kan moo bëgg a maye ngir yàlla Ousmane mën na indi deux cent chameaux feesal leen ak marchandise ne yonent bi joxe naa ko ci yàlla. maanaam kon yéen tay tabe ngeen noonu daal. of course sama lépp man naa koo jox Sénégal. Hmm. aw ma ci benn problème bugguma gis sénégalais bu boppam di metti. sama lépp wallahi billahi tallahi mën naa ko jox Sénégal. waaw man awuma problème boobu man boo ma laajee boo doxoon ci biir tali bi aussi nga laajte mm-hmm. Ousmane même chose la. gis ko gis naa ci Ousmane Tunkara gis naa gis naa ci Ousmane Dramé gis naa ci euh, <laughs> seen seen seen leader bi euh, ñi gën ko xam ci euh, Ousmane comment dirais-je ni ñu koy waxatee sax. Sonko Sonko moom mais moom mais mais moom li muy kaas est-ce que est-ce que maanaam lu palpable la loo xamante ni tey mu oh. mun nañ ni loolu dëgg la parce que ay quatre-vingt-quatorze milliards yu diis rek lay kaas. léegi kaay ma expliqué la léegi dafa am loo xam ne euh, comme niñ koy waxee doomu aadama toujours ñu ne la na ngay maandu. Mhm. nga wax loo xam ne wóor na la à cent pour cent. Mhm. mais aussi nga joxe firnde ci li nga xam ne moom nga jot gis. Mhm. Sonko mënuma laa ne li muy wax yëpp. c'est palpable ou pas parce que man duma Sonko moom moo xam li mu am li mu yor mm-hmm. mais dafa am jikko bu ndaw boo xam ne ràññee naa ko ci moom mooy euh, la plupart des temps lu mu wax rek comme lu génn ci gémmiñam moom day yor firnde da la koy wan day yor ay firnde mu teg ko te bu leen fàtte dara est-ce que xam ngeen ne Sonko euh, major la de sa de sa euh, comme maanaam li mu jàng mm-hmm. dañ ko ci tànn ne ko yow yaa ci gën a aay il n'est pas seulement un simple étudiant boo xam ne comme man tey par exemple Ousmane te ma man koo tiitaroo te samay mbokk ñu ngi koy déglu te ay nit ñu ma xam ñu ngi koy déglu mois j'ai été toujours premier de ma classe. mais mais est-ce que est-ce que mën nañ ko tànn na moo si gën a aay rek ñun war nañu wékku si moom ne li mu li mu wax yëpp dëgg la xam nga loolu laa la njëkk wax nee naa la nit sa sama jabar bi may fanaanal benn néeg sax xamaluma ko lépp. Mhm. donc Sonko xamaluma ko lépp. Mhm. mais j'en suis sûr et certain que ci li ma xam ci moom akas néew lépp loo xam ne génne na ko yor na ko wax na ko je me dis bien que saytuwaat na ko ba mu leer ko parce que Sonko ñi ko wër ay jeunes lañu Mhm. jeune Pastef yi dama la jox exemple. Mhm. la plupart des temps jeunes yi ko wër ils sont bien informés te ñuy dajale ay information balaa ñuy sax ñaan laata. Mhm. c'est que nag Sénégal su ma la déggee da nga bëgg wax ni moom ci yi ko wër la wekku ci ay information non non non non non dama la ne ñi ko wër rek déjà comme ay conseillers xam nga tey Macky Sall mooy li ñu doon wax sànq Macky Sall lu ko sanal du moom xanaa xamuloo président de la République. comme ni ko suñu xarit yu baax yi di ko waxee président la république du nelaw yenn saa yi lu ëpp trois heures wala quatre heures de temps par jour. Mm-hmm. information yi muy am yëpp ay doom ay nit ñoo ko koy informé mm-hmm. mais man xam na nit ku jege président te muy conseil te muy xarit ci man. Mm-hmm. du ma tudd turam nag après ko wax hors caméra. sama diggante ak yàlla ak yonente bi kooku warul sax di conseil ay ganaar. xam naa ko. xam naa ko sama am di jàmm bu ma ne xarit parce que xarit dafa diis. Mm. mais vraiment sama am di jàmm mais déjà nit koo xam ne mënuloo koo fekk mu ànd ak sagoom. la moo tax la moo tax àndut because he like drinking and doing crazy stuff. en tout cas daal du ma sori ci <laughs> ah mais mais mais mais mais mais mais nañ kii moom mooy mooy kii naan. dafay naan. xam nga man julit laa te déjà je je ne bois pas man du ma naan dinaa tux cigare boyar kese mais sinon du ma tux cigarette du ma naan du ma def yooyu mais moom waa ji nee naa la pour nga gis ko mu ànd ak sagoom sax bariwul. mais mais mais mais am wax waxu ñuy mandit la waxee liñ lay wax. mais déggoo ma la wax ma ne la boo ko gisee mu ànd ak sagoom sax bariwul. ni ma la ko doon expliquer léegi muy affaire Sonko bi ak affaire aussi président de la république ak problème mu conseil. mais pour gàttal rek mooy euh, ak preuve li ma xam akas néew. Mhm. Euh, waa Pastef laa ko mën a waxee du Sonko rek. Mhm. Euh, Sonko mooy seen leader. mais groupe doomu adama la yoo xam ne ñoom ñoo ànd te pourtant xaw ma lu tax sax nga bëgg ma identifier ak ñoom. non non non c'est que c'est que c'est ngeen li ngeen di xeex ba te tamit yow tamit sa xam-xam war na nàcc ci côté boobu tuuti parce que Sonko tamit moom day génnee benn wax ne am naa preuve yi mais preuve ba léegi doo gis mu génnee ko ay ay ay numéro compte bancaire yi mu doon wax ba léegi gisuñu gisuñu si dara soo naka la ñuy mën a gëmee. dafa am loo xam ne c'est pas légal dans la am na loo xam ne loi nangu ko. bañ ko wax. déedéet man nga koo wax. léegi bu la loi wooyee ne la nga indi preuve ñoom nañ ko woo ne ko loi bi woo ko mu indi preuve preuve dafa am foo ko war a wonee boo génnee preuve ci benn fa benn côté boo xam ne waroo koo wone tu as violé la loi. nga dem loi wone ko. moom loi la dem porte plainte léegi loi moo ko war a laaj ko ay preuve. bi mu demee loi wone na loolu. mais wone na li nga xam ne moom la waa ji def nee na waa ji lii la def. mu porter plainte loi moo ko war a woo ne ko indil ñu firnde yooyu yëpp nga teg ko sur la table loi bu ko wooyee mën naa teg loolu sur la mais bu ko loi mënu koo génnee ci mbedd loolu crime la loolu da koy indil problème. so léegi yow langa nga lan nga yaakaar ni moo tax loi woowu wala loolu moom defe nañ ne loi Sénégal moom xanaa nga bëgg ma dellu si rek loi Sénégal Sénégal li fa na sax dafa bari loi bi suñu loi bi tamit fii bu ne nii maanaam euh, politiser nañ ko loi bi benn koor boor la loi bi man naa la ko wax ba ci sama ay xarit man ku mm. ànd ak Macky Sall kenn du la laal ku àndut ak Macky boo waxee lu dul naka si noonu ci kaw Macky dañuy daal sa kaw loolu moom loolu mooy loi Sénégal guddi yi ñu toll ba mm. xanaa yàlla dimbali ñu mu changé ci diggante bi Euh, léegi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom la ñuy jublu nii di ko gis muy troisième mandat troisième mandat baa ngi jege si euh, defe naa ni moom euh, dina dina yëf yi dina tàng de ndax Karim dina ñëw xam nga Sonko ngi nii daanaka moom li muy wax lijjantee guñ ko sax am na yeneen ak yeneen ah, xanaa léegi yéen ba ba yéen a ngi préparé mun a am ay saafara ñu xool nuñ ko demee si jàmm ak salaam. ah man de ñaari solution laa am ci troisième mandat bi Euh, encore en tant que frère maa ngi entraîner chaque jour pour ma am condition physique yàlla may ma wérgu yaram may ma jàmm boo xam ne bu dee marche la dinaa dem ànd si ak sama frère yi Sénégal ñu marche ko ñu xeex ko bu dee nag yàlla suturaal nañu ba président de la république ànd ak sagoom teg lépp loi yi nga xam ne moom moo nekk ci yoon parce que Aly Ngouille Ndiaye moom dootul jiitati ay élection Sénégal parce que élection bu fekkee da ngaa bëgg mu jaar yoon dañoo war a wut ku koo xam ne farul ci benn parti pour mu gérer donc fichier électoral bi dafay leer mu tegu ci biti bu président bëggee. mais mais mais Aly Ngouille Ndiaye yor yor na ko fii ci élection bi jàll te tax teewul dafa jaar ci yoon. élection bi jàll sori na ak jaar ci yoon ci ñun suñu gis-gis sori na ak jaar yoon xam nga ñaari affaire moo am Macky Sall gagné na élection yi in technicality maanaam gagné na ko kenn contesté wul parce que li tax loolu mooy. am na ay doomu aadama yoo xam ne ñoom yaakaaroon na dem nañu ba xalaat ne lii moom contesté ko mooy perte sa temps parce que boo ko contesté duñ la faale justice yi nga koy yóbbu perte sa temps la ak ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ko war a def muy conseiller constitutionnel gis nga keroog juge juge boobu bi mu fa génnee et il dans l'histoire du Sénégal dafa doon lox sax bi muy génnee eh, <laughs> information yi dafa pare rek gars yi dem jox ko ay garde corps mu gaaw nag génn dëkk bi ci boppam dem donc yu bari yu mel noonu yëpp mën naa ñàkk defe nañ ne Macky Sall au moins man naa delloo Sénégal njukkal ànd ak ngor ak gore. te xam na sénégalais yi ñoo ko dënkoon Sénégal. mu def mu def ko ni ko ni mu waree. am na droit nag samp euh, mbërëm. pa moom mu samp mbërëm am na ci droit moom benn individu ci constitution wu Sénégal amul droit def plus de deux mandats. Mhm. mais am na droit tey mu xool ci parteem wala keneen ku ko mën a doy koo xam ne moom lay àndal mu ànd ak moom. Mhm. te ñu jaarale lépp ci yoon. Mhm. mais lu dul naka lu dul loolu du am jàmm. lan moo tax du am jàmm. dañuy indi problème ñun de. tous les pour lan man problème laay bañ a dégg. dinañu marché. dina ñu xeex ak ñoom bu ma nee xeex mooy def li nga xam ne loi bi permettre nañu ko dinañ ko def comme ni ko. maanaam yow da ngay dagg sa billet jóge fii dem ba Sénégal waxatu ko loolu kenn waxatu ko comme ni ma ko defee woon ci wan million dabay dem pare naa sama saag takk naa ko bu yàgg mais. Mhm. élection jotagul. élection fii ak élection xam nga tey boo xoolee élection locale yi dafa waroon am ci novembre bii bu ma juumul. Mhm. wala décembre jël nañ ko ñu pousse ko. lan moo war a tax nga yaakaar ñuy def man defe naa loolu yëpp ci caay-caay la. yow yow yow ci kujjeg politique gi kan nga ci àndal. kan nga ah. yaakaar ni tey buñ ko tegee ci bopp réew mi dina ko yor comme ni ko bëggee. yàlla na yàlla may ñi fa nekk yëpp ñuy ay candidat yàlla na leen yàlla may xol bi ñuy yoree dëkk bi may leen xel bu set boo xam ne dañ koy yoree dëkk bi mais pour le moment wax dëgg yàlla Sonko la votel Sonko la votel wax naa ko téeméeri junni yoon. Mhm. mais loolu benn Euh, nga xool candidat yi nekk sur place nga waxtaan ak ñëpp nga xam exactement ku ne position am fan la kooku Sonko moom ma ci doyoon en ce moment mais ça ne veut pas dire que élection yi ñëw décidé naa ki nga xam ne moom lay woteel. Mhm. loolu xamaguma ko dama. mais mais mais mais mais mais mais Sonko dëgg la Sonko dëgg dëgg la wax ji muy wax ah bu réew mi nii 94 milliards pétrole bi nii gaz bi nii yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp wax wax jooju mën nga ko dégg maanaam mën na nekk loo xamante ni yow mën nga ci am yaakaar ci moom. mais mais mais est que yow yaa ngi jàngat après Sonko lan lay indi. après xam nga du comme du ma seetkat mënumaa xam lan lay indi mais dafa bind livre boo xam ne man maa ngi ko yor sama loxo mu tudd solution. livre bi liir naa ko. laa waa bind na livre. déglu politique. déglu rek ma expliqué la. xam nga Laay Wade bi mu bindee livre moo tax sénégalais yi jàpp nañ ko responsable bi mu jéemee indi troisième mandat. Mhm. Sonko livre am ma liir buñ ko tegoon ci bopp réew mi new ma moom lañ fay teg mais buñ ko fa tegoon bu jalgatee premier année bi lay commencé di ko jubbanti ne ko diw lii nga waxoon diw la li nga waxoon diw lii nga waxoon. parce que en réalité ñun loolu rek moom la ñu mën a def mooy doomu aadama yi ñu fàttali leen li ñu waxoon. xam nga tey président de la république ñun bu ñuy wax ci moom audio mi rek la ñuy tegaat vidéo yi mhm. dund mi jafe na waaw fii kenn du fi am ñetti mandat waaw fii lépp day jaar ci yoon ñun yooyu mais mais na nag liggéey liggéey na Sénégal na liggéey na defar na réew ma mais kenn lew la liggéeyul buñ la joxee liggéey lan nga mën a def lu dul liggéey bu dee tey yow dama la denk sama liggéey ne la diw damaa bëgg nga jaayal ma banaana mais boo jaayee banaana ma lay fay kay def nga sa liggéey mais euh, mën naa gën a liggéey kenn newu la Macky Sall liggéeyul ku toog fii Sénégal tey ne Macky Sall deful dara danga nga dof mhm. def na dara mais man naa gën a def mën naa gën a moytandiku yàqkat yi mën naa dàq sàcc yi dugal leen ci kaso bi tëj leen mhm. jaarale réew mi yoon mhm. tey boo xoolee TER bi kañ la waroon daw train express régional kañ la waroon daw train express régional defe naa bu ma juumul le le trente bii la waroon daw xaw ma le trente un ñii naan le premier ñii naan le deux. lan moo ko teree daw. mais parce que parewul parce que is daan affaire bi infrastructure bi sax réglé wul mi ngi crack. mais mun nga calculer dat bii dina pare fekk loolu xam nga yàlla rek moo xam. xam nga euh, pour gën a gàttal. man dama yaakaar ne Afrique dafa toll ci phase boo xam ne rek war nañoo daw njaamu tubaab gi defe na bu ñu bañee topp ci ginnaaw tubaab yi di leen jox suñu alal ak contrat yu cher yi. mais mais xam nga tey. Euh, Laay Wade jaar na fi Laay Wade ci ci lu mel nii la daan wax. da daan kaas ñëpp ni Laay Wade la keneen ak keneen jaar fi Macky Sall bi mu fiy bi mu fiy ñëw ñu koy teg si bopp réew mi nii la demee woon da daan kaas di wax rek. Sonko tamit noonu. te ah, yéen mais mais non non non dama lay dama lay expliqué. wax xam naa ne ñëwagul xam xam naa ne Sonko ñëwagul Idi ñëwagul. mais waaw waaw waaw léegi léegi xam man xam naa ñooñu ñëwaguñu. mais dama ne la est-ce que ñoom. tey yéen sikk bi ngeen gis si Macky Sall laataa mu mi ngi ñëw man xaw ma lan ngeen gis si moom ba tax laataa muy non laataa muy ñëw gisoo leen ko bi mu ñëwee léegi sikk bi ngeen gis si moom est-ce que tey Sonko tey moom. metteel boobu noonu Sonko mën naa gën a sikk Macky Sall bu ko defee dañuy gën a dal ci kawam mu gën a metti Macky Sall Sonko mën naa gën a baax Macky Sall bu ko defee dinañ ko gunge mu gën a defar comme Macky Sall tey. Hmm. Macky Sall bu changé woon doxin léegi léegi léegi suba. wallahi ñu ne parti déglu ko mu liggéey. bu changé woon demin suba. Hmm. jàpp par exemple xam nga tey am na lu mu wax lu am solo loo xam ne peut-être dégg nga ko. contrat Sénégal léegi wala ay ay affaire liggéey ni comme euh, projet nangootul ku def lu ëpp deux milliards te moom gisul kayit bi teguwul ci loxoom xam nga loolu am na solo. Hmm. mais micromanagement la tudd. loolu micromanagement la ci anglais maanaam tey maanaam loolu sax mën naa tax dëkk taxaw. Hmm. parce que dëkk bu mel ni Sénégal quinze millions de personnes ñoo fa Mm-hmm. bu benn doomu adama aadama ne dara bu mu nga yëngatooti te ñëwul sama loxo kon lépp day yéex xam nga lu ma la bëgg mm-hmm. mën naa jàpp daal sàcc yi tëj leen ñii def lu baax mu promouvoir leen teg leen ci situation xam am na ñu wóor ñu président bi am am na nit ñu baax. léegi yow lan nga yaakaar ni tey Macky bu ko indi woon tey ci réew mi ci ci ci li nga xamante ni yéen bëgg ngeen mu doxee ko lan ngeen yaakaar ni tey bu ko Macky indi woon tey réew mi dina changé. moom laa la expliqué nii teg loi bàyyi loi def liggéeyam jaru sax muy teg loi loi nga fa pare na bàyyi loi def liggéeyam mu séparer tuuti pouvoir yi. mais Macky teewul loi def liggéeyam. ah waaw léegi loolu garaawul. loolu daan daan tout daan de toute façon xam naa ne temps bi du ñu permettre pour ñu wax loolu léegi nañu continuer ci yeneen débat rek <laughs> waaw. waaw ah, ñu ñëw ci kii nga xamante ni moom moo di euh, jubóo Macky Sall ak euh, président Laye Wade. defe naa bu ma daan déglu démb dama daan déglu toujours Souleymane Jules Diop naan Macky Sall Ablaye Wade day bàyyam Ablaye Wade day bàyyam daan naa dégg wax ci nag yeneen yoo xam ne yooyu c'est pas important mais li ma gëm rek mooy en tant que président de la République du Sénégal Ablaye Wade aussi nekkoon ancien président de la République du Sénégal war nañoo mën a juboo pour ñu joxante idée parce que dans une société normale déjà pour président bi mën a def liggéeyam dans les normes day waxtaan ak kële mu wax ko ci ay affaire jàppale ko ci toogaayam ak ni nga xam ne noonu la war a def. Mhm. ba réew mi mën a jëm kanam. Mhm. donc pour man loolu positif positif rek laa ko mën a gisee. Mhm. mais yow si sa xam-xam bu naaj ci euh, ci li nga xamante ni yaa ngi toog di nga xalaat est-ce que yaakaaroon ni góor gi mag yi ñoom euh, est-ce que ay dilul gi xëy yooyu. mais gi moom. defe naa comme niñ koy waxee toujours suñu maam la. donc euh, il a fait sa vie. te pare na mais xam nañ ne góor gi il est très capable. donc góor gi. xam nañ ne euh, lëg la mhm. euh, il est très intelligent mhm. euh, xam nañ ne lépp lu muy def am na lu mu ci sóoraale mhm. te loolu defe naa doomu aadama bu nekk daanaka noonu nga war a doxee mais dafa nekk rek ci kaw Ablaye Wade c'est un cas très délicat donc muy mag mu servir Sénégal ci at yi yëpp ñu koy ñaan rek lépp loo xam ne dafa doon xalaat boo xam ne du luy yóbbu Sénégal kanam mm-hmm. wala luy nasaxal suñu démocratie bi mm-hmm. buum ci dox parce que du ñu mayeti kenn boobu opportunité mm-hmm. ñun jeune patriotes yi ñëw tey wallahi euh, euh, du ñu autoriser ti benn homme politique mu ñëw Sénégal bëgg koo yàq ñu toog ci touche di la seetaan ñu xeex ak yow danañu xuloog yow danañu defanteeg yow ba vraiment Sénégal am jàmm sa ci Karim Karim Wade moom comme nima ma ko waxee moom da nga bëgg ma ne tàppet la rek parce que dama xalaat ne naka la ñuy xëccoo politique gu dëkk yow nga tëdd fële ci Dubaï wala euh, na Qatar. Mm-hmm. nga bàyyi sénégalais ñoom ñuy reyante fii bu dara desul lu dul nga ñëw toog laaj réew mi nga toog laaj réew mi déedéet yaakaar naa Karim Wade moom euh, sama xalaat la nag c'est personnel. bugguma ni ma bëggeewul kuy laal Ablaye Wade parce que mag la noonu laa bañeewul kuy dóor ci kaw Karim Wade parce que il est mais je pense que maanaam daal su déggee daal su ma la déggee daal mooy. Euh, respecté wul sénégalais mhm. parce que defe naa booy laaj rew bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe élection yi ak lépp ni mu demee noonu lépp na sax Karim Wade waroon naa wàcc ci réew mi li fekk fekk ko waaye moom dèjà ki muy rek mi bu ko menacé bu ñëwee dama koy jàpp rek moom ñemewul déplacé wu. ko mënti doon est-ce que dem Sénégal. ah man menacé ma balaa may dem Sénégal nga toog fii yow yaa répété léegi. nee nañ ma mënumaa dem Sénégal nee nañ ma soo dinañ la jàpp Macky Sall lii Macky Sall dama dagg sama billet dem Sénégal mais mais mais yow da nga mais yow da nga mais yow da nga nekk Karim Wade Macky Sall moom moo ko euh, menacé bokkul ak yow. Ah, bokkul ak yow ndax askan bi ñooy wax. de de noonu yow wax ni. Hmm. dégguloo xanaa li ma lay man amul menace bu ma déggul. man ñi may menacé ay nitu Macky Sall direct ñu. ñu woo la menacé la. su dof bu ne dégg naa ko ci àddina pa même bu woo def nañ ko sax en man xanaa yow rek. mais ñooñu ñan mais ñooñu ñan. xanaa yow rek yow bi may dem Sénégal sa diggante ak yàlla sa xel dal na. yow bi nga déggee ne Ousmane Tounkara bi ngi Sénégal sa xel dal. non mais man man man moom sama xel daloon na quoi. sa dal na ah, man te tiitu ma si woon. ah voilà donc. xanaa xanaa yow nga tiitu si rek. alhamdulilah man du ma tiit. parce que tapp ragal maanaam ragal. Mm. doomu aadama bu ragal doomu aadama yab yàlla la. nit warul ragal lu dul yàlla mi ko sàkk. mais ñan ñoo la doon menacé ci ci loolu. ay nitu ay dof laa la ñu ñan rek ay waa APR comme ni ma la ko waxee. Mhm. Euh, am na ay nit yu doon wax ci réseaux sociaux yi manta dem kii bu demee Sénégal di nañ ko def lii dinañ ko jàpp nañ ko dugal fii bi ngi ci réseaux yi boo demee di nga ko gis. sa digganteeg Assane Diouf gis nañu ni ay mbiram bokk si ñu si sonn. loolu comme ni ma la ko waxee léegi tuuti rek moom mooy exactement être être nekk nit. yow tey bu la dara daloon yàlla nañu yàlla musal dinaa ci son parce que bu ma dara daloon tamit am naa yaakaar ne dañ ci sonn mm-hmm. loolu yëfu nit la rek bokkuñu ndey bokkuñu baay bokkuñu fu ñu jóge bokkuñu benn koñ musuñoo dëkk nekkuñu ay dëkkandoo mais dafa nekk sama am di jàmm comme ni nga ko nekkee mu nekkoon jeune bu nekkoon fii ci New York ñu am jàmm donc euh, yàlla def mu nekk ci ay situation mhm. donc ma war a ma war koo taxaw en tant que jullit donc. dañ koy dañ koy dégg mu lay tudd lu bëri bëri bëri bëri maanaam euh, yow ànd nga ci li nga xamante ni moom lay def saaga yeeg yooyu. non non absolument pas ànduma ci saaga. muy sama doom di Assane Diouf di sama nijaay di keneen ànduma ci kenn saaga kenn nit man ngeen bañ a bokk xalaat mais ba léegi vraiment ku nekk ngeen sàmmante li nga xam ne loolu la leen loi permettre. Mhm. xam nga tey dañu am loo xam ne freedom of speech la te bépp sénégalais am nga ci droit mm-hmm. mais quant à Assane Diouf euh, d' accord nga ci ay saagaam d' accord ma ci saaga kenn. ñu ñëw ci wàllum éco euh, xaalis bu bees bi ñu bëgg indi ci réew mi. lu sa xalaat. mooy rakku franc CFA bi. loolu tubaab yi la rek. loolu moo ko def rakk français euh, loolu français yi ñoo bëgg a indiwaat beneen <laughs> manière bu ñuy lëree parce que yeewu nañu ci ancien bi c'est mais écho ak français bu njëkk bi dañ ci yeew c'est la même chose. non ba xam ni c'est la même chose. ah ba dama def samay ay kan moo koy créer fan lay jóge ci ban banque lay jaar yan nit ñoo koy gérer français. lépp français la France daal. Mhm. moo bañ a wàcc africain yi bàyyi ñu ñu nekk ci jàmm. France moo ñu bañ a wàcc ci suñu kaw la bëgg a dundee. Mhm. mu ànd si ak ay quelques njiit. Mhm. yoo xam ne dañ ko nangu. Mhm. donc euh, ñu ma yaakaar rek naka. ñu profité ñu profité si say gëstu xam naa ni bu ñu waxtaan ak yow ko mun nañ ñu am si ay information ñan ñoo ko créé ak fan lañ koy defaree. ñan ñoo créé lan. Euh, li nga xam te moom moo di ECHO. well dëkku africain yu bari ñoo ko waxtaanee. mais j'en suis sûr et certain euh, majorité parti dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ci fës Sénégal la ak Côte d'Ivoire ak dëkku francophone yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey déjà ci. côté franc CFA bi donc loolu li muy firndeel rek mooy lan moo war a tax France war ñoo wax ñun ban monnaie la ñu war a utiliser ñun mën ñoo utiliser lu tax du ñu utiliser France mais léegi nii nee nga ñun africains yi ñoo dem def réunion toog waxtaan ci ECO léegi lan moo si dugal français yi ba ñuy ba ñuy wax ñun li ñuy euh, pexe France xam nga fra ñun defuñu sénégalais surtout dëkku francophone amuñu indépendance amuñu liberté ñun mënuñoo wax. ci suñu bopp kese ñun amatuñu boobu amuñu boobu man-man tey Macky Sall mënul décider Sénégal dara loo xam ne français yi bokk ci. armée française baa ngi noonu foofu base bi ñu teg ko fa. bu waxee lu leen neexul bu subaa ñu yëngal dëkk bi affaire terrorisme wala affaire dara indil président bi problème comme niñ ko defee woon Burkina ñu defee ko euh, Togo def ko yenn dëkk yu bari. Mhm. ci Afrique boo yëngatoo boo nee pipe France baaxatu fi def na fii rek ñu rey la. wala ñu ñu ñu ñu coup d'état la wala dara defoon nañ ko Mali def nañ ko fépp ndaw si nekkoon euh, euh, ambassadrice African Union te mu nekkoon France demal nga xool ko ci internet bi fàtte naa bi fan yi la génn di ŋàññ France ci seen xaalis ak seen doxalin Afrique rek dañ ko limo limogé dañ ko fa jëlee si saa si ndaw si faf na resign mhm. ndaw si demoon Russie dafa am euh, une Ivoirienne aussi yor naa turam fenn fii mhm. ndaw si dafa demoon aussi di ŋàññ li nga xam ne moom la France di def ci réewu Afrique yi moom it bi mu ñëwaatee gars yi ñu koo joxaat carte séjour am fi mu ne nii temps yi loolu moo nekk di lëmbale ci réseaux sociaux France daal moo ñu yéeg bañ ñoo wàcc moo ñu yéeg bañ ñoo wàcc di ko jaajëfal bu baax baax ki nga xamante ni euh, moom moo di Ousmane euh, Tunkara tey nag mbokk yi ñi ñëwoon euh, fii ci Wassare News daal di koy jël si nag ñëw ci këram jël si ko vraiment defe naa ni waxtaan bi am na solo vraiment am na solo macha allah macha allah waxtaan bi bëggoon nañ sax mu gën a gudd waaye xam ngeen kenn ku si nekk rek ku ne xam ngeen ne dañoo am temps dañoo am heure bi nga xamante ni euh, foofu la ñuy yemale gannaaw sax bi nga xamante ni xaw nañoo xaabaabal ba romb heure buñ ñu mayoon ba ñuy dolli ñu se ay ay simili euh, du ñu def lu dul rek bàyyi ko moom it mu daal di tàggatoo ak askan bi. Euh, kon comme ni ma la ko waxee rek maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier aussi ci seen visite. Mm-hmm. mu doon lu am solo vraiment ma jaajëfal leen ci remercier leen remercier aussi seen courage. Mm-hmm. parce que vous êtes jeune. Mhm. te gëm ngeen seen bopp te gëm ngeen li ngeen di def. Mhm. te fas naa ci yéene vraiment ànd ci ak yéen. Mhm. Euh, toujours bu ñu amee ay information comme ñun ñëpp. lenn la gëm ñu partagé. bu ñu amee aussi vraiment lépp loo xam ne bëgg nañ koo jàllale. Mhm. ci muy lu am firnde. Mhm. pour Sénégal lu am njariñ. Mhm. ñu woo leen ci. bu fekkee loo xam ne la doy na leen ci seen liberté. mu mu méngoog li nga xam ne moom ngeen di def. vraiment ñu ànd ci ak yéen parce que man dama gëm dama gëm progressif. man dama gëm start-up dama gëm kuy commencer. dara commencer ko à zéro di ko yéegal mu dem. Mm-hmm. man li ma gëmul la plupart des temps mooy ku fekk société bu taxaw bu mag ne ko coppet jël. Mm-hmm. man gëwuma loolu. Mm-hmm. man dama gëm koo xam ne jëmbat laa gëm ci garab mooy nga jëmbat bi mu nekkee ndaw. ngay arrosé di arrosé di arrosé mu màgg donc yàlla na leen yàlla lafal cat yàlla boole leen ci vraiment média yi am ndam ci atum ren bi euh, ak déwén jëm kanam jàppal jàppal ni euh, wasaare wasaare TV wasaare euh, bu askan bi la. Euh, saa boo amee loo bëgg a wax wala loo nga xam te bëgg nga koo jàllale ci ay information bul hésiter woo ñu incha allah rabbi dinañ dinañ la fekk si. incha allahu rabbi comme ni ma ko waxee rek vraiment maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, di leen jaajëfal te aussi di leen jéggalu soriwaay bi tuuti parce que xam naa ne <laughs> we are good 45 minutes away from. nan ngay wax mbokki internet yi nga xam ne lay seetaan ci wasaare ñu ñu daal di bës cloche bi. Euh. well euh, li ma leen di wax rek mooy gars yi tey defe naa war ngeen ko mën a gis sax ci sama ay comportement maa ma maa ngi free pour une première fois am naa tense with my. samay naataango laa ko mën a mm-hmm. waxee ñaari jeune brave journaliste yi nga xam ne vraiment mhm. euh, li ngeen di def am na solo lool mhm. te comme ni ma koy waxee lii moo lay won rek nekk ñun on mhm. n'est pas dans le jugement au Sénégal mais dañuy lépp loo xam ne dafa baax pour suñu réew rek bëgg nañ cee bokk donc merci jaajëf yàlla na defal jàmm jaajëf kon mbokk yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax yéen it ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni eh, yéenay bàyyi seen temps yëpp di seetaan li nga xamante ni moom moo di eh, wasaare TV eh, moo xam ci lamb bi wala religion bu mu munti doon yéen ngi koy suivre maa ngi leen di ñaan tamit bu leen ko fàtte na surtout pas parce que li ma bëggal sama bopp laa leen bëggal mooy lan li nga xamante ni moom leen leen di jox chaque jour si vidéo yi ngeen koy bañ a raté bës leen cloche bi dene boot ñaari nopp ci kawam euh, su ko defee euh, saa bu ñu te vidéo di ngeen ko mën di am fii lay xewee fii ci New York ak wasaare ATM borom l'est l'ouest le nord et le sud jantal animateur best of animateur in the world ay ci kon mi ngi noonu